ربنا إليك نشكو ضعفنا وحالنا وعزنا في ذا الزمان المظلم يا ربنا يا ربنا إليك نشكو ضعفنا وحالنا وعزنا في ذا الزمان المظلم زمان قطع رحيم والجور والتظالم والغوض في المحارم والفشق والتشاتم وبدع وحيل وزور والتغافل عن كل ما يرضي العلي والنصر كل غاشم mbokk yi mu mel ni ki bi ñu nuyoo adduna bi yëpp ziyaare leen ah, ziyaar mbokk yi nga xamante ne bi ñoo ñu dalal tey ci seen plateau bu mag bi muy waa Touba TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaar di leen ñaanal yàlla jàmm di ñaan yokkute ci télé bi incha allah yàlla na ko yàlla def e, bu ngeen déggee kàddu yi jóg léegi ni muy abiyaat yooyu nga xamante ne bii moom lañ fi jot a yëkkati ah xam ne am na lu xew lu rëy li xew nag lan la mooy kilifa gu mag di doomi kilifa gu mag. muy sëriñ Habib si bu seex Mouhamadinil Mansour borom daara ji moom moo war ñëw fii ci Amérique latin wara a si fii ci dëkk bi ñuy wax Argentine ci Buenos Aires a ah, loolu it nag di lu rëy ci bokk yi nga xamante ne bii mooy bokki senegal yiñ ko bokkal waaye di lu rëy tamit ci diine ji ndax fa tabaarakallaahu kilifa njabootam da koy tiitaroo waaye njabootit kilifa daf koy tiitaroo ab ah, tabarakallahu moom nag mu bokk ci kilifa yi nga xamante ne bi seen njaboot dañ koy tiitaroo tabarakallahu ah looloo waral jataay bi ñu ngi koy war a dalal fii incha allah eh, samedi la fi war a yegsi di le wala le 29 ci mois de mars bii ñu nekk incha allah dimanche mu daal di noppalu fa muy noppalu altine ñu war a dajeeg moom ah ndaje bi nag la cay laxasu dana bari naam taalibe yaa ngi fi ñi seen toogaay jekkoon mu gën leen a dëj ci seen toogaay ah ñi seen toogaay dëngoo nit mu jubbanti leen ñu jubbanti ku toog toogin bu jekk ah tabaarakallaahu li ñu ci yaakaar ci ñoom it muy ñaan ñu ñëw àndaaleel ñu ko. ah ndax sëriñ góor a xam nga ne ab sàmm moom tabaarakallaahu bu sàmmee bu ñëw bay bu manqué rek dana la xamal ne la bëy sàngam manqué na ñooñu nag bu ko sàmm mënee noonu la ko nitu yàlla yi mën a ci seen njaboot fa tabaarakallaahu loolu mooy li nga xamante ne bi mooy li ñuy waajal ba tax ñu toog fii tey ci jataay bi incha allah Ah, waaw soññe bi ñuy soññe day du paase nañu ko daan defee ci at yi yëpp ndax loo xamante ne bii du première édition def nañ ko daaw def nañ ko daaw jeg ah tabaarakallaahu liñ leen di soññe rek mooy bu bës ba jotee ñu mobiliser wu ñun ñëpp te xam ne kilifa yi ñoom bu ñu xesee bu jóg ñëwuñu genn ngir kër rek ñëwuñu ngir benn këru diine dañuy ñëw présentu lu mel ni ki ambassadeur ci dëkk bi ndax dañuy indaale e, njaboot yi fi nekk yëpp la ñuy teewal ah su boobaa nag ñun ñu fi nekk di sénégalais suñu gan la waaw ñun ñëpp nag kum ci mën a doon rek sa gan la fii ci dëkk bi ah ñu bokk ñun ñëpp teeru ko nañu ko daan teeroo waaye it teral ko ndax gan moom e, nit ñi mën nañoo fexe ba téye làmmiñam waaye ay bëtam moo ko xool moo ko moom ah, su boobaa nag ah, moom ay bëtam la yor rek di xool waaw tabaarakallahu ñu ngi ñaan daal su boobaa ñun ñëpp ñi fi nekk te ay sénégalais ñu bokk mobiliser wu ah teeru ko teral ko ci anam ba gën a rafet waaw ndax it tabaarakallahu loolu mooy li nga xamante ne bi mooy la ñu ca war incha allah waaw waaw waaw moom dafay ànd ak Serigne Sambub muy tàggatu yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Hadj Sambub di koo xamante ne bii kenn du ko présenté ti moom àdduna bi yëpp xam nañu ko waaw dafay bëggal nit ñi moom lay faral di àndal incha allah ci wàllu animation. waaw bu ko defee nag eh, ki ngeen dégg mu yëkkati kàddu yi léegi muy Sidna Hassan eh, ñoo fay nekk di ko jàppale waaw ndax it daan naa dégg ci Serigne Fallou Mbacke. mu baax ma mu daan wax naan yaasal jalaali bu neexee mm. yaa xayra waali ja ca gannaaw tax waaw kon nag su boobaa jàng eh, bu yëkkatee rek gaa yi nekk ci gannaawam eh, di nab nabi rek incha allah fas yéenee bégal mbooloo mi comme ni mu koy defee ci réew ma di ko defee ci Europe waaw defee ko ci réew yëpp rek tabarakallah waaw dëgg la ñëpp kontaan nañ te moom dafa di li ko yàlla may sax tabarkalla dafa di polyvalent la tey fu mu duggee rek da ngay jàpp ne foofu la waaw fu mu duggee rek da ngay defe ne foofu la léeg-léeg ma dégg ko ci xasit maam borom Touba yi eh, mu mel ca ni tabaarkàlla la te it loolu lañ soxla ci réew mi dañ soxla ñoo xamante ne bii buñ toogee ba wax rek ñu xam ni kii sénégalais la sénégalais nag moom lépp loo xamante ne bii njëriñ la ci Sénégal rek ak ku ko mën a wax rek ci Sénégal na nga ko fexe maîtriser jotal ko loolu mooy dundu sénégalais te loolu lañ soxla ci réew mi te kenn la ci ñi nga xamante ne bi mu dafay doxal mission boobu ya majmaa albahrayni ya alama alhuda faara alxasirati nusat alakwani akrim biman sajada al asjaru لأجلي وقالت الأنهار سكى إلي جمل مولاه من فتن منه لما يلقاه نبي كلمه الدب wa anna aljizu lada alfiraqi walanin yusmau min mujizati albadri siqaqu alqamari akrim bi min albada walwadari min mujizati albadri nabul ma'i بين الأصابع بلا مراي محمد لمن شق جزاء للحبيب البدر أكرم به فحبذا كذاك شق الصدر من معجزات انشقاق القمر أكرم به فحبذا من وذره xajaab day di maalik neena yaa asiidan jadwaawam kulal bara yaa akadiyam min wa min ajam akrim bi haadal alami yaa asiidan jadwaawam kulal bara yaa wa min ajam akrim bi ذا العالمين